ñu génn gis nañ wax yu bëri jib ay werante jib ci ay vidéo yoo xamante ni ñu ngi koy gis ci internet bi loolu dama bëggoon tamit fii xibaar ni enquête am na ci bu ñu ubbi ci loolu l'enquête boobu nag moom moo war a leeral li am premier ministre wax na ko léegi ci wàllu nit yi faatu ñu leen di jaalewaat seen ay mbokk di massawwaat ñi ci gaañu ak ñi yàqule te seen yoon nekkuñ ci euh, wàllu manifestation yooyu enquête yooyu du yem ci leeral loolu ci wàllu ñi faatu ak ñi gaañu waaye enquête yooyu tamit dina leeral ci lépp loo xamante ni xewoon na ci euh, biir manifestation yi may wax ni euh, ku nekk mën nga joxe sa xalaat ku nekk mën nga xool indi sa jàngat waaye dëgg dëgg dëgg ki koy indi mooy yoon mi nga xamante ni moom moom moo may àtte